بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بوجود سيد الأولين والآخرين التي قال تعالى في حقه إنا أنظلناه في ليلة مباركة وقال تعالى إنا أنظلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وأكده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا قفر له ما تقدم من ذنبه السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته جماعة إصلاح بين الناس Congregation pour la réconciliation entre les peuples ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla sax keen ñaan di wax ni ñu ngi am bekte bu baaxa baax ci groupe bi ak ni muy doxé borom xam-xam yi imam yi kilifa diine yi kilifa aada yi waaye nag ñu leen di ndokkeel ci weeru koor gi di xam ni ñu ngi ci fukki fan yu mujj yi nga xamante nii dëgg-dëgg koor gi mu ngi wane ginnaaw waaye nag ñu xam ni niñ doon doxe ci koor gi noonu lañ war a doxeet bu koor gi jeexee tey jii di guddi gi nga xamante ni moom la suñu boroom wax ci alquran ni mooy guddi goo xam ni gën na junni ñu ciy ànd ak almufakkiru suufi nekk aalim nekk muallim imaamin aamilin aadilin baqiyatu salaf المفكر الصوفي mën nga wax ni allazi tabaxara fi fununin min ilmi shariati walxaqiqati walfaydati ibrahimiya liñ koy waxtaan loo bind na ci bind na ci dëgg-dëgg kon feek na ko nekk ndaw waaye ndaw loo xamante ni dëgg-dëgg xamuma fu mu jaar ba dox ak ndawam ndax lépp def na ko ci lislaam bi jàng jotee jàng na bi génn jàng jotee génn na jàng bi am ay diplôme jotee am na ay diplôme bi mu ñëwee mu ngi servir réewam lan la nekk professeur bu mag di jàngale ci école gouvernement bi macha allah loolu muy la am solo tey jii kon moom la ñu war a àndal mu waxtaanal ñu ci ngëneelu guddik laylatul qadar su fekkee exposé na li muy exposé ba pare incha allahu taala buñ ci amee ay laaj dinañ ko ci laaj ku ci am laaj nga laaj ko ndax guddi tey gi guddi la goo xam ne ñëpp dañuy dem di ko màggal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 المتدلي لعباده الصالحين والمتجلي لأوليائه المقربين بما له من الأسماء والصفات بالحق والبراهين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين ومنقذ اللاجئين والمستغيثين نبي الرحمة والرضوان صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيا همة الشيخ احدوي لنا بهذا المحضر ولتعطفي نظرة تأتي لنا بالظفر assalaamu aleykum <clears throat> wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jamaatul islaahi bayna annaas maa ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan borom bi tabaraka wa taala mboole ñu defal tawfiq di ko ñaan yi tamit mu nangul ñu koor gi nga xam ne <clears throat> nangu nañ togg bim ñu ko togg ñu di ci jéem ñu ñaan yàlla nangul ñu ko defal ñu ci njéggalu bakkaar defal ñu ci tamit yërmande waaye defal ñu ci tamit ak njéggal ak ak gore ci safara e, mu mel ni nag tey dañ ñu sant waxtaan boo xam ne waxtaan bu am solo la boo xam ne dañ koy def itamit ci période am te mooy guddig laylatul qadri lu mu wundu xam naa sax laaj biñ samp maanaa bi lañ laaj waaye dinaa ñëw ci maanaa bi dinaa ñëw ci maahiya bi ndax maahiya gi ak maanaa bi bokkuñ maahiya gi mën naa bañ a xóot waaye maanaa bi moom dafay xóot incha allah dinañ ci ñëw bu soobee euh, qabla kulli shay li ñuy njëkkee mooy laylatul qadri niñ ko xamee ñun ñëpp baat la boo xam ne ñaar yi wala boog kàddu la woo xam ne ñaari baat ñoo ko composé baat bu njëkk bi mooy laylatu ñaareelu baat bi mooy qadar wala qadri muy baatab arab boo xam ne dañ ko composé ci ñaari lafzu bi ci njëkk mooy laylatu laylatu nag ci luga tour la wo xamne dañ ko jigéenal buñ ko gorélé laylu lañuy wax ñu diko defal jamu taksir bo xamne khayru qiyasi la motax ñu diko jam'o ci layal wal wal fajr wa layalin ashr moo tax jamoom jamu taksiir la boo xam ne xeyru qiyaas yi bennam mooy laylu suñ bëggee natt lan mooy laylu dañuy wax ni jamono la ci bis bi mu dalee fi jant bi sooyee بفي فجر دي خاري موتخ القرآن الكريم سنكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل القرآن فوه تحجينا لن يلن موي ليل ليل موي زم موي بن جمعنا لكي بس بس mu ngi dalee ci maghribu shams fi jant bi di sooye yem fi fajar gi di xare moo tax suñ mbokk chiites yi ñoom beneen dégg lañ ci am su ma timmu siyaama ilal layli ñoom ñuy woor ba mu gudd ba mu gën a lëndam waaye guddi su ma timmu siyaama ilal layl ñun dégg-dégg biñ ci am mooy ila bidayatil layl te bidayatil layl mooy bu jant bi sooyee te mooy timis wax nañ ni boo nee allaylu wala nga wax allaylatu benn la am ñu ne déedéet laylu allaylu mooy contraire u annahaar mooy contraire bëccëg waaye boo nee allaylatu mooy contraire bis am ñu ne déedéet allaylatu mufrad la allaylu jam'u la moo tax léeg-léeg baatu yowm dañ koy utiliser e, ci maana bëccëg yowm léegi da nga dégg ku ne la al yawm jublu ci annahaar bu fekkee loolu maana lugawi laay wax noonu su fekkee dañ ko delloo ci al maana al istilaahi moom du génn ci maanaa luxawi bi moo tax foofu du jar ñu di fa xóotal ñaareelu baat bi composé kàddu gii di laylatul qadri mooy alqadru alqadru nag ci luga dafa bari ay maana dina firi asharafu gi firi tedd nga dina firi alwaqaar bi firi wegeel bokk na ci ay maanaami tamit alxukmu atte bokk na ci alqadaau dogal bokk na ci at tabyiqu xatal comme ni ko alquran waxee wa man qudira alayhi risquhu fal yunfiq mimma aataahu llah loolu mooy maana tadyiq képp koo xam ne yàlla gàttal na sa wërsëg na nga def sa kéemtalaay kàttan ci li la yàlla jox kon gis nga baatu qadr am na maanaa yi yëpp قدر نك عند المحققين نيغا خامني نوي محققون اي نيوم ام نين بنين غيس غيس بو غنا خوت موتا سانك مانيلا ما هي لاي وقتاني اك معنا لي محققون اي واخ نك دوت ما هي واي معنا لا نيوم لان لنج فيري قدر موي تعلق الاراده تعلق الاراده الذاتيه بالاشياء fi awqaatiha alxaasa namm namm ak yàlla gi aju bi muy aju ci jëmm yi ci waxtu wim ko jagleel loolu lañ tuddee xadru moo tax xaal bu nekk ci axwaal yi aju bi muy aju ci jëmm yi ak ci jamono bi nga xam ne ci lay aju ci jëmm yi loolu la muxaqiquuna yi di tuddee qadru te loolu sabab la bu ñu ràññee ci muxaqiquuna yi te mën nañ ko firndeel loolu liñ ci bëgg a wax ñoom mooy xurujul mumkinaat min al adami ila al wujudi waxidan baada waxid xam nga ni yàlla moom kott moo fi nekkoon te nekku feeg dara ba mu bëggee feeñal nguuram sàkk mu sàkk fi jëlee leen ci adam ci lu ñàkk ñuy feeñ benn par benn te seeni feeñ di dëppoog ndogal bi maanaam di dëppoog li yàlla atte ci ñoom loolu la muhaqiquuna yi di tuddee alqadr foofu nag dañuy gis ni alqada wal alqada bu ñu waxee qada ñoom dañoo gis ni qada mooy jëfi yàlla ci azal qadru mooy jëfi yàlla ci ëbët maanaam mooy ginnaaw ba yàlla dogal lam dogaloon ci ëzël ba mu feeñee fii rek ñu tuddee ko kaddu ci loolu la nag ñëw ci farq bu sew bu nekk ci diggante xadduru ak xada farq bu sew maanaam am na différence bu ndaw ci diggante xada ak xadr léeg-léeg nga dégg ku firee xadaawu ndogal firee xadru ndogal waaye am na tuuti sew-sew قضاء موي جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة مجتمعة لولو لمي تكتلي موي لولو تي أزلية لا مولم نكتي في فنك هم اكزيست بيم اكزيست في اللوح المحفوظ لولو موي قضاء قدر نك موي وجودها متفرقة في حصول شرائطها la yàlla dogal ci lawhul mahfuz feeñ bi muy feeñ fii ci aalamul ashbah nekk lu tasaaroo kii juddoo fii kii juddoo fële garab sax fii kii def ni yàlla dogal ci kii wërsëgu ay milliards dogal ci kii wërsëgu ay junni dogal ci kii nangam dogal ci kii nangam kenn ku ci nekk ci la yàlla chartal loolu mooy xadru moo tax boroom xam-xam yi fuqahaawu yi ñoom wuute nañ ci lan la yàlla jublu ci qadr gi nga xam ne dañ ko askanale bile guddi maanaam layatul qadr qadar baatu qadr boobu yàlla daafal idaafaal laylatu bi lan la ci jublu fuqahaaw yi ñoom dëppoowuñ ci dañ cee wuute ci ay maanaa dinaa ci ñëw ci lu tolloog ñett bi ci njëkk am na ci ñu wax ne li yàlla jublu ci qadru googu mu laafal laylatu mooy at-ta'zimu wa tashrif màggal ko teral teral guddi googu ñu ne ci loolu la aaya bi jógee wa ma qadarullaha xaqa qadri gaa ñi daal joxuñu yàlla dëgg dëgg dayom maanaay loolu nag mooy guddi gi guddi maanaam laylatun laylatun zaatu qadrin wa sharafin guddi gu am dayo la guddi gu màgg la lu ko sabab ndax alquran ci moom la wàcc ñaareel bi mooy malaaka yi dañuy wàcc ñetteel bi mooy yàlla day wàcce barkeem ak yërmandeem ak ak njëggalam ak jàmmam salaamun hiya hatta matlail fajr ñeenteel bi mooy képp koo xam ne dundal nga guddi gi dangay ngay bokk ci da am ci teraanga googu yàlla dalay terale ci guddi googu loolu mooy benn wax ci waxu fuqahaaw yi ñaareel bi moy ci maanaay qad waxoon naa ko sànq mooy at tadyiq xatal wa man qudira alayhi rizqu kep ko xamne yàlla gàttal na sa wursak lolu maana tadyiq fi ak tadyiq maanaam fii qadru fii tadyiq lay firi te mooy lan mooy ixfaauha an il ilmi bi taayiniha bu fekkee layatul qadri dañ naan mooy guddik tadyiq liñ ci jublu mooy nëbb bi yàlla nëbb euh, guddi googu ñu xam ko bi taxdiid muy benn wala ñu ne kaw suuf malaaka yi liñ fi rëj rëjloo ba mu xat ci ñoom ñu ne kon laylatu tadiq loolu benn maanaa la ci fuqaaw yi muy ñaar ñetteelu maanaa bi alqadru fii alqadaru bi fatxi daal mooy alxukm alfasl ak atte teqale ak dogal kon dangay ngay gis ni fuqaaw yi wute nañ ci léegi nag ñun mën nañ ci ñëw ci beneen ibaara ci wax ni qadaawu mooy te jëllil xaq li nafsi bi xaysu la nisbata la te bi yàlla def ci boppam nga xam ne amul dara luñ koy askanalee xam ngeen ni loolu mooy ahadiyatu mën nañ ko tuddee qadaawu li yàlla namm ci boppam qadru ñu ne te jëllil xaq bil mawdudaat yàlla ay namm nammam feeñal yim ko feeñal gim ko feeñal ci ay mbindeefam kon da gis ni bu njëkk bi ajug namm-namm yàlla gi la ñaareel bi feeñal kàttan ak yàlla ci mbindeef yi lii mooy diggante qadru ak qada duñu xóotal lool dañ koy def mu gaaw amma nag guddi gi ñuy wax laylatul qadr benn guddi la ci guddi weeri koor yi mën nañ wax ni weeri koor mooy weer wi gën a tedd ci fukki weer ak ñaari yàlla dëxëñ ci tamit guddi goo xam ne mooy guddi gi gën a màgg ci guddi yi ndax borom bi tabaraka wa taala junju na ci alquran ne guddi gi ku ci jaamu yàlla di nga am yool bu ëpp ku jaamu yàlla junniy weer guddi la goo xam ne yàlla ci la digaloon yoon euh, malaaka boobu di jibril alayhi salaam mu wàccee alquran ci lawxul mahfuz ci asamaanu àdduna bi ci benn bayt bi ñuy tuddee baytul izza ginnaaw gi mu digal ko mu jëlee ko ci baytul izza di ko wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci ay événement kon alquran dafa wàcc jumlatan ci baytul izza dafa wàcc jumlatan ci baytul izza après nak muso ga wàcc mutafarriqan ala xasabi al asbaabi wal xawaadis ci ay sabab ak xew-xew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 jàmm hiya guddi goo jàmm la xataa matlail fajri ba keroog fajar gi ci loolu lañuy profité ñëw ci xadis bi nga xam ne xadis bu wér la ala sharti saxihayn kii ñuy wax abu bakrin moo nettali آه، أبو بكر موم محمد بن المؤمل مؤمل ني الفضل بن محمد الشعراني نتلنا ما ني عمرو بن عون الوافتي نتلنا يو ني ابن عباس رضي الله عنهما نينا أنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم فرق في السنين قال وتلا هذه الآية fala uqsimu bi mawaqi'i nujum qala nazala mutafarriqan dafa wax ni kii ñuy wax Xusayn ibn Abdurahman jëlee na ci Saïd ibn mu jëlee ci Abdullah ibn Abbas radiallahu mu ne alquran yàlla nga ko wàcc ci guddig laylatul qadr ci asamaan gu kawe gi la ko jëlee indi ko ci asamaan adduna jumlatan waahida mooy fi la wax sànq mu baytul izza ginnaaw gi nag ñu teqale ko ci ñaar fukki at ak ñett mu ne ba mu paree ci loolu mu jàng aaya bi ne maa ngi giñ ci tàbbi waayu biddiw yi ne loolu li muy firi mooy alquran dafa wàcc mutafarriqan maanaam ci ay sabab ak i événement muqaatil maa ngi jégalu dama ko doon partager ci beneen groupe muqaatil dafa wax ni nazala alquran kulluhu min allawhi almahfuzi ila alsafara fi laylatin waxida laylatu alqadr fa qabadahu jibril عليه السلام من السفرة في عشرين سهرا وفي عشرين شهرا وأداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة وسميت ليلة القدر ليلة مباركة لما فيها من البركة والخير ثم قال إنا كنا منذرين يعني بالقرآن فيها يفرق كل أمر حكيم يقول يقضي الله في ليلة القدر كل أمر محكم من الباطل ما يكون من السنة كلها إلى مثلها من العام المقبل من الخير والشر والشدة والرقاء والمصائب يقول الله تعالى أمرا من عندنا مقاتل دفني yàlla dafa wàcce alquran lépp ci lawxul mahfuz jugee ci lawxul سفري jaar بن قدي guddi googu mooy guddig laylatul yi ñu jox ko jibril jibril e, di ko wàccee ci yonantu bi sallallahu alayhi wasallam lu tolloog ñaar fukki at ak ñett guddi googu nag alquran wàcc guddi googu lañuy tuddee laylatul qadr te mooy guddi gu barkeel gi ndax lim ëmb ci barkeeg yiw yàlla wax na ni ñun yàlla kunna munzirin ñun de aji waare lañ ci guddi googu alquran maanaam ci alquran alquran jooju ñu wàcc ci guddi googu aji waare lañ ci alquran jooju alquran jooju ci la yàlla teqalee lépp luy am ak lu fasoo am muy guddi goo xam ne ci la yàlla di dogal lépp lu fasoo maanaam ci la yàlla di wàccee ci ci ci ci nit ñi lépp lu fasoo am ci at biñ jëm moo xam lu baax la moo xam xay la moo xam tarsar la moo xam yomb-yomb la moo xam ay musiba la mu ne loolu nag amran min indina lépp lu ciy wàcc rek ci suñu ndigal lay wàccee ñun borom bi tabaraka wa loolu di lu am solo kon laylatul qadri moom yaakaar naa ni ñëpp dëppoo nañ ñi alquranul karim ci la wàcc kon nag xam nga ñun dañuy chercher ay affaires yu bari te dafa am lu ñu jege am na ay waqaa yoo xam ne buñ ko nattee suñ bopp rek duñ ci werante li ma bëgg a wax ci loolu mooy wuute yiñ am ci kañ la laylatul qadri ñi ñi jàpp ko fii e, taasiatin tabqa maanaam vingt et unième guddi ci koor gi ñi jàpp ko ci vingt cinquième bi ñi jàpp ko ci ci ci ci ci ci vingt septième bi kenn ku nekk di wut foo ko jàpp waaye dinaa ñëw ci leeral loolu bu baax waaye ci gàttal rek suñ ne man maa ngi juddu ci par exemple ñu ne diw de dafa juddu six avril deux mille vingt quatre yaakaar naa anniversaire am moom six avril deux mille vingt cinq rek la mën a nekk munut toxu te alquran bu fekkee layatul qadri la wàcc ñëpp dëppoo ni ci ñaar fukkeelu guddi ak ñett ak juróom-ñaar ci la wàcc kon dëgg dëgg anniversaire wàccu alquran warut warut toxu waaw loolu nag lal taay la pour wax lan moo ci sama gis-gis euh, xadis bii ñuy bëgg a jàng Saïd ibnu Jubayr dafa wax ni dafa wax ibnu Abbas radiallahu anhu ne ko dama bëgg nga solo ma maanaam nga firil ma إنا أنزلناه في ليلة القدر نيكي نونو ما نام دفنكو أخبرني عن قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وإنا أنزلناه في ليلة في ليلة مباركة نعري آية يوي رابك نجدين بالمشي عن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سوير كور بيغا خمنا سوير لواكي القرآن ak kulluhu am baaduhu ndax alquran lépp la yàlla wàccee ci weeri ci weeri koor wala lenn ci alquran ibnu abbas ne ko anzala allahu alqur'ana jumlatan wahidatan min alsamai alsabiati ila samai dunya fi leylati alqadri fa jucila inda mawaqici nujum mu ne ko yàlla dafa wàccee alquran lépp benn yoon ci mu tukkee ci juróom ñaareelu asamaan wàcc ci asamaanu àdduna sii loolu ci guddik laylatul qadri la ñu denc ko fi ñuy tuddee mawaqi'u nujum mu indi aaya bi ne fala uqsimu bi mawaqi'u nujum ba ci la yamassuhu illa almutahharun ñaareel bi mooy malaaka yooyu ànd ak jibril di wàcc kullama utiya بمثل يلتمس عيبه نزل به كتاب الله ناطقا قالت اليهود يا أبا القاسم لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى فأنزل الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا يهودي bu alquran daan wàcc jibril di ko indi ndànk par ndànk par événement dañoo taxaw ne ko yow abal xaasim alquran de su wàccoon benn yoon ni tawraat wàccee konoon ñu gëm ko yàlla ne ko déedéet ñun yàlla ñoo koy wàcce nii di ko pàcc pàccal ngir ñu dëgëralee ci sa ngëm ñoo koy jàng ñoo koy wàcce di ko jàng ci tartiib boo xam ni moom la wàccee maanaam loolu aaya yi day wane ni alquran kenn ko parax paraxee boo koy jàng da ko war a jàng murattalan wala tartiilan mu ne wala yattuunaka bi masalin duñ la indil benn misaal illaa jiinaaka bil xaqi lu dul indil nañ la li ciy dëgg wa axsana tafsira ak li ci gën a rafet ci firi mu ne ko wa qur'anan farraqnaahu li taqraahu ala annaasi ala muksin alquran maa ko dispersé maa ko tekkale ngir nga mun ko jàngal nit ñi ala muksin ci dal par événement par atte par xew-xew <clears throat> noonu la yàlla wàccee alquran ibnu abbas ba tey solo nañ jëlee ci moom mu ne yàlla dafa wàccee alquran ci asamaanu àdduna ci laylatul qadr ba nga xamee ni su bëggee wax yu dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala dara xew ci kaw suuf mu digal jibril mu wàcceel ko lu méngoog moom loolu boo demee ci al mustadrak ala sahihayn di nga ko fa fekk ñaareelu mu jëllat bi safha deux cent quarante un numéro xadis bi mooy deux mille huit cent soixante dix sept waaw xadis yi ñu wax ni yëpp mën nañ joxe référence yi xam naa dañ ko fàtte bi njëkkoon a wax تميتي المستدرك على الصحيحين لنا كنك كنك قدقي نخمن موي قدق ليلة القدر هي ليلة تختص فيها السارق بتجل خاص يعرف به قدره ورتبة بالنسبة إلى محبوبه guddi la goo xam ne képp koo xam ne soobu nga sa ab boroom maanaam yàlla rekk la yitteel yàlla daf la ci feeñu feeñu gu spécial loolu mooy lan maanaam yàlla daf lay may capacité kattan ak bëgg-bëgg ci jaamu ko ci guddi googu sa kémtalaay kattan ci la jaam bi di xamee dayoom ak garaatam ci yàlla mi muy wax ni moom la bëgg te guddi gi mooy waxtu njëlbeen ak jokku ma jokkuk aji soobu bi ci lu ñuy tuddee aynul jam'i aynul jam'i nag boo ko bëggee xam mooy ki nga xam ne mën na maanaam eh, dafay jaamu yàlla ci shariatu ba du bàyyi dara waye itamit da fay jaamu yàlla ci haqiqatu badu du dara bi maana ci gatta rek da fay nek ci digeunte xaydu ak itlaq xaydu moy da sariya da lay teunk comme niko way Baay Ñas doon na wax kullu unasin déedéet ibnu arabi alxaatimi moo ko wax la taghtar billati zalat sariatuhu an illahi walau jaal anba'u anbaau jaa zaalat sariatuhu walaw jaa al anillaahi su ma jumee ngeen baal ma ci baytu bi euh, maanaa bi daal mooy bul waru di topp koo xam ne du jëfee shariatu doonte que daf lay wax ni li ma lay wax xibaar yi ma lay jox ni ci yàlla laa koy jëlee direct bul ko topp kon danga nga war a sax ci shariatu ni ki noonu nga dund sa xaqiqa ci ngay yeggee ci maqaamul baalighina fil maarifa maqaam ak ñi nga xam ne dañoo yegg ci gaayub xam yàlla rod na ci tafsiru tabari muy jaamiul bayaan ci fukkeelu mujallad bi ak juróom benn page quatre cent quatre-vingt ci taba Shakir numéro hadis bi mooy vingt mille quatre cent soixante-douze muy wax ni إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم منه قال يقضي ولا يقضى في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من يلا داي دوغال ci laylatul qadr li wara xew ci at yépp ci xeetu wërsëg ak su ko defee nag moom mooy xool lim ciy jiital ak lim ciy mujje mu ne nag amma kitaabu shaqaa'i wa saadati texeet texeet yi nag loolu lu sax la yàlla du ko soppi xam nga loolu xadis bale jàngale woon na ko mooy xadisu e, badil xalq nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ciy jàngale atwaar alxayaat maanaam étape yi nit ki di jaar ci biiru ndeyam yonentu wax na ci xadis boobu yàlla su su demee ba roof ci yow ruuxu dina dogal ndax dangay ngay texe wala da texe di dogal sa wërsëg dogal lépp ci yow dogal loolu nag yi e, ne na fa huwa saabitun laa yuxayyar kenn du ko soppi loolu nag dafay tegtale ne dafa am lawxul maxwi ak max maxfuuz lépp lu yàlla saxal ci lawxul mahfuz du soppeeku maa yubaddalul qawl la day lawul mahfuz ko tax a jóg waaye lépp loo xam ne dafa nekk ci lawxul wi yàlla daf ko dogal ba pare wékk ci sabab ci misaal ñun ñëpp xam nañ ni yàlla mooy dogal suñu dund suñ app dund waaye nag sàkkal nañu ay sabab yoo xam ne mais boo defee nangam yàlla dina yokk say fan kon gis nga loolu yamhu llahu ma yashaa'u wa yusabbit loolu mooy lawhul mahwi guddi gii nag yàlla ko tànn ci biir guddi yi def ci barke màggal ko yëkkati dayoom ba def ci yool ku jaamu yàlla junni weer maanaam képp ñeel képp ko dundal jële nañ ci Saïd mu jëlee ci Qataadata ba tey ci tafsiru Tabari muy wax ni inna allah astafa صفايا من خلقه اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا واصطفى من الكلام ذكرى واصطفى من الأرض المساجد واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم واصطفى من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالي ليلة القدر فعظموا ما عظم الله فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله inda ahli lfahmi wa ahli laqli mu ne yàlla dafa am ay tànneef ci mbindeefam yi tànn na malaaka yi ñuy ay ndawam mu tànn ci nit ñi tamit ay ndawam tànn alquran muy kàddoom kàddoom muy alquranam ji mu tànn si kaw suuf yëpp mu tànn ci jàkka yi dëkkee ko ni ki noonu weer yi mu tànn ci weeri koor ak asfurul xurum bis yi mu tànn ci ajjuma guddi yi mu tànn ci laylatul qadri kon nag nañ màggal li yàlla màggal ndax ku am xel am dégg-dégg bu yàlla màggalee da ngaa war a màggal loolu lu amaam solo la pour ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax léegi nag dinañ ñëw ci lan moo sabab ñu tuddee guddi gi laylatul qadr euh, mbokk mi gannaaw bi nga seetaane vidéo bi ba pare ñu lay ñaan nga bës fii ñu bind jëm bu fekkee gande si chaîne bi nag bësal fii nii ñu bind s'abonner après nga activer cloche bii nii mën nga tamit wax sa xalaat yii nii si commentaire yi lii nag ci fay dara te dina tax buñ dugalati ding si jot jangin ngeen